dooree ko ci maladie di ci hôpitaux yi ak ñi weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen fa dara bañ leen faa dugalati waaye saa su ne xel sunu dem ci way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bakkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe kilifa diine yépp ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen yàlla yàggal leen ci sunu kanam yàgg nangu seen ñaan waaye tam ah, yàgg ñu yàgg ñoo jiite lool ndax seen teewaay am na solo ci réew mi am solo ci askan wi kon ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla yàggal ki sunu kanam lool lool kilifa aada itam naka noonu ñu nuyu leen ziyaar leen ñaanal leen jàmm ndax seen jàmm mooy sunu jàmm waaye ñaan itam yàlla tàppe xol yi ñoom ñëpp ñu nekk benn ñi ci nguur geeg ñi ci kujje gi ñëpp yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura may ñu wér may ñu wér le may ko képp koo xamante ni jamono bi yaa ko kale sëngën gi télé di la 2STV Euh, ñu ngi la koy ñaanal bu baax la lay teree nelaw yaa ko xam yal na ko sunu borom teggi lépp mujj ci jàmm sedd guy ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko itam ñi nga xamante ni ñooy jaaree ci 88 point 4 seen rajo origine FM nga xam ni lépp loo xamante ni dafay jàll ci 2STV dañu ko fay jàllale parce que soorale nañu ñi nga xamante ni dañu nekk en déplacement te xam nañ ne sénégalais dafa bari activité dem ñëw liggéey wàcc duggu oto yooyu yëpp bokku ci donc loolu moo tax rek. seen rajo boobu saa su ne ngeen di ko mën a bàyyi xel ci 88 point 4 muy rajo origine fm doon rajo boo xamante ni bépp programme 2STV moo ko tax a taxaw 2STV xam ngeen ni lawal na ay banxaasam ba fépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi mën ko seetaan kon dafay jaadu ña nekk bitim réew taamu tukki moo xam réewu afrique la wala réewu nit ku weex nañu yëg ne rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar leen ñaanal jàmm waaye di ñaan saa su ne la ngeen namm ci télévision yàlla ngeen koy fekk ci ñun te saa su rek li ngeen am ci ñun ñu di leen ko yónnee moo xam euh, mandat lay doon moo xam euh, du ma tudd daal euh, ñi nga xamante ni ñooy bërëbu envoyé kaay xaalis yi waaye nag yéen yéen a ñu ko mënal ñun li ñu mën rek mooy ñaanal leen yàlla may leen wér may leen kàttal sàmm leen musal leen ci ndog-ndog yi nga xamante ni dafay dal way tukki yàlla bu mu dal kenn koo xamante ni rek jamono bi yaa ngi toog jàkkaarloog ñun di ma setaan alors alxamis bu nekk damay ànd ak Sathiou Awane Ndiaw Makoddu Samb moom laay àndal ci émission bi vraiment démb ñu ngi remercier bu baax a baax Rama euh, ci taxawaayam waaye alxames bi Ndiaw Makoddu lañ ciy àndal kon njaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la bàyyi nga nuyoo mbokki téléspectateur yi def naa pare goo gàmmu gi ba léegi. waaw gàmmu gi xam nga moom euh, ba léegi dafa nay xam nga gàmmu gi ren dafa ala moo tax. ah feeñ na ci yow de. waaw gàmmu gi de tuwaarkàlla. macha allah. <laughs> yaay booy ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. nuyu ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu sama yaay soxna Xadi Sam di ko ziyaar di ko ñaanal gudd fan ak wér ak yaay yëpp amiin di ñaanal yi uh, tamit uh, képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo ci réew mi ñu ngi lay ñaanal jàmm mhm. di ziyaar bu baax a baax nag uh, xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour mhm. mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu Seydil xaj Malick ak mboolem ku soosoo ci maam Seydil xaj malik rawatina nag suñu bunt ci kër Seydi El Hadj Malick di Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy mooy nag ñu ngi koy ziar bu baax a baax Serigne Cheikh bu Moustarchidine wal Moustarchidaat di ko mm-hmm. ndokkale ci gàmmoo ren gi nga xam ni bu baax waaw tabaarakallah mm-hmm. waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñaanal ko mbooleem ku bokk ci maam Seydi El Hadj Malick allahumma amin di ñaanal réew mi yëpp soxna Mbayek mm-hmm. di wax ni li ëpp solo daal mm. ci ci ci réew mm. ëpp solo ci doomu aadama mm. bokk na ci màndarga mi ñuy tudde dal dal dal dafa am solo mhm. ndax dal su ko nit ki defee mën naa am fu mu teg tànkam dëgg la sama maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabakh mhm. dafa wax loo am solo muy dafa wax ni mer ñetti jëfandiku la moom mer waaw mer mhm. nee na bu jëkk bi nee na wax la nee na wax soo meree def ko mën naa doon géej nga lab ca hmm. bu ñaareel bi nee na mën naa nekk jëf hmm. nee na boo jëfee mu wàññeeku doon gaynde fàdd la hmm. bu ñetteel bi nag mooy tekk nee na boo nee tekk rek tekk wan wan la yoon waaw moo tax tekk dafa am solo tekk nag mooy pilier bi nga xam ni fi la dal di jastandi ay loxom pour mën pour mën a toog kon ñu gën ci bàyyi xel. Mm. bokk na ci tamit màndargay dal. Mm. mooy lépp loo fëgg sa xol réagir. Mm. bul yónnee sa xel yabalal sa bul yónnee xol. yabalal sa xel sa xel. Mm-hmm. ndax si Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum. isan yal yàlla yokk leeram daf daan wax ni mm-hmm. dee leen jiital xel yi teg ci xol yi. dee leen jiital xel yi teg ci xol yi ci xol yi. ndax nee na ku muñe xol mu rey la. ñu ne ko si lan la ñuy muñe mu ne xel la muñe. parce que ku muñee xol danga nga ciy boole on. waaw nee na boo bëggee nee na boo bëggee muñ nee na muñal ak sa xel. Mm-hmm. boo ko defee mu ubbi la ay yoon nangam lii lu ko sabab nangam lii lan laay def ba résoudre problème bii. Mm-hmm. nangam nangam. Mm-hmm. waaye nee boo ko tëjee sa xol. nee na xol place su yàlla la yàlla leen ciy dugal tëj ko jox ko caabi ji. moo tax nee na dal am na solo. muñ am na solo. dëgg la waaye tekkit am na solo. am na solo waaw parce que tekk xaar la. Mm-hmm. boo ne tekk tekk wan la yoon. gis nga ñi man ci àddina bi soxna Mbaye. Mm. dañoo amoon li tubaab yi di tuggee capacité de tranquillité capacité de tranquillité waaw mooy force bi nga xam ni moom la nit ki di am. Mm-hmm. pour mën a lire am droit de regard ci lépp nag waaye du ko yàkkamti parce que doxam dafay def lentement mais sûrement. kooku moom bu jaaree ci yoon woowu bu defee jéeya dana bett ñu bari. dana bett ñu bari. moo tax du ko yomb. moo tax moom moo tax nitu yàlla yi loolu la ñu mënee woon. Mm-hmm. maanaam benn situation am rek. Mm-hmm. ñu defi ni ñu defi ni dën naan bërit wax ci ñu ñu jël ko teg ko de côté ba quinze ans après wala vingt ans après ñu soog a wax ci loolu parce que am na koo xam ni bu fekkente ni bu juumee yóbbaale ñu bari. bala mhm. moo réagir war naa xool. war na koo xolaat moo tax tekk am solo. am na solo. silence am solo. Mhm. parce que bokk na ci li nga xam ne mooy dimbali kilifa. Mhm. dimbali responsable. mooy mën a wanaasu lu ko metti kilifa day wanaasu. day wanaasu. d'accord kilifa day jëllale. parce que boo bëggee li nga xam lépp nga wax nga woon ko sa njaboot ni ko xam naa ko. sa njaboot génn ci yow. baay bi neex ci kër mooy baay bi xam lu bari. nga ñëw nax ko mu d'accord ci nax yi. Mm-hmm. ba pare gën laa xam suba lay xew. Mm-hmm. moo tax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum. mi nga xam ni nit a koy weddi waaye jamono du ko weddi. Mm-hmm. dafa am bis taawu këram di Serigne Mansour euh, euh, magu Serigne Mustapha. nee na bi mu nekkee ci daara ji nee na dafa am bis mu ñëw gàmm mu mu nuyu ko ba pare ni ko ah góor gi man day lal bi ma dëkkee ci daara ji bu ma ci tëddee daanaka sax du ma xaw a nelaw ndax dafay jëngatu. nee na à l'époque mu ni ko. ma bëggoon lu ma jënde lal rek pour néeg bi ci daara ji mhm. ci jamono boobu Serigne Cheikh yëkkati un million jox ko te boo amee cent cinquante mille ama sama akusu bi dàq ci àddina yi la mu yëkkati un million jox ko ak a baax Serigne Mansour nee na ma jóg di dem mu ni ma waaye mhm. sa ñaari maam yu baax yi tëdd fii mhm. li nu daj tëdd ci lalu jamaa sax jomb la waaye boo xama ni nu gedde àdduna ngir wéetal seen borom mhm. mu ne ko mu ni ko tëdd ci lalu tagar ëpp na ci yow sëriñ Mansour delluwaat fa bi mu ko joxee un million million yi ba pare waaw ba mu génn di dem mu ne ko sa ñaari maam yu baax yi tëdd fii mhm. tëdd ci lalu jamaa jomb la mhm. waaye ni nu génn ni nu gedde àdduna ngir wuti seen borom tëdd ci lalu tagar ëpp na ci yow est loolu mooy enseignement buy jariñ jabootam mhm. sëriñ Mansour génn xam li ko góor gi wax. moo tax daan euh, wax ni yi mu ñu joxoon ñu def ko ay defi fu ñu jëm moom la ñu yóbbaale moo tax nee na bari na ko nu mag te mu noonu ëpp fayda. mooy bu leen tiitaru. Mhm. bu leen tooñ. na ngeen a xam li ngeen bokk ak nit ñi ak li ngeen moom yéen. Mhm. ak li nga xam ni dañ leen koo dégg ngeen bañ koo sànq. moo tax sëñ Cheikh loolu la jàngal tabarkàlla njabootam yëpp. moo tax mhm. yal na yàlla yokku leeram. allahumma amiin ñu ndokkeel maam Seydi El Hadj Malick ci boppam. Mhm. moom mi nu indil xéewal ko am solo gii. Mhm. ci eh, réew mi ndax. ba mu demee ca maamam rasulullah yi keroog ba mu koy tàggu te façon yéene dëkkaaleeg moom mu tëdd guddi am lu ko ni pëkk pëkk mu jóg mu ne ko Malick dellul ci fa nga jóge bu doon fukki nit nga defar ko moo gën nga dëkk fii moo tax ba mu jàppee ca rawdu ba di ko ñaan daf ko ni maa ngi lay ñaan nga may ma barab bu lew bu may tuure sama ñaq mhm. pour man cee sàmme sama ngor ak sama diine mhm. palaas yi ñuy jaamoo yàlla ca Sénégal ma bokk ci ñi ca le mhm. waaye yaakaar naa ni loolu ëpp na ndax wax naa la keroog ni la dernier sondage yi mujj am ci 2015 bi ci jàkk yi ci réew mi 4741 jàkk la Maodo def na ci 440 euh, def na ci 4 4741. jàkka jàkka. moom moo am ci 4703. waaw moo am ci 4 moo am ci 4700 moo am ci 4000 euh, kii 703. yaa ma jàngal. kon nga xam ni Seydi El Hadj waaw nga xam ni Seydi euh, kon. <laughs> la mu ñaanoon suñu borom dimbali na ko suñu borom na ko. loolu nag mu bokk koog nawley diineem yépp mhm. ci réew mi ba keroog bi gàmm gi jotee. Mhm. da ngay bëgg xam ne l'islam gañeete na. Mhm. lu tax mu gañe soxna Mbaye. mooy bépp. tariqa bu nekk ci réew mi wala ngay doomu soxna. Mm. keroog sa délégation ñëw na ci Tiwaawan. am na solo boo ko maam Seydil Hadj Malick bëccëg bi. muy lu am solo euh, donc 88 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen di seen numéro wala numéro international bi su ko defee rek ngeen mën a participer ci seen émission bii di euh, kër gi euh, ci lépp loo xamante ni rek dafa jëm ci sunu thème de la semaine waaye njàmbaasaale ci yëpp comme ni ma koy waxee rek saa yu ñu ubbee mag njaw ma koddu dañuy faral di def récapitulation ci li fi xew ci biir semaine bi kon li ñuy def rek mooy buntu baa ngi noonu ngeen mën ci jaar waaye tam di wax ne ànd nañu ak waa tib yi seen produit madaar yi nga xamante ni yaakaar naa ni lu wax ci sax léegi euh, jaratu ko ndax ñëpp xam nañu ko te yaakaar naa ne madaar bu jógee ne dafa ñëw ci biir émission kër gi mooy tubaab dem na Paris ndax setal kër gee ko tax a jóg ak li ci kër gi kon bu ñëwee ci biir émission kër gi rek mooy tubaab dem na pari te it nag euh, nee naa leen courant du pile benn yoon ki ko mën ak ki koy jéem bokkul kon Madaar mi ngi noonu ñu ànd ci ak waa HD industrie suñ demee ba émission bi des quinze minutes incha allahu taala dinañu ànd ak yéen ci seeni minutes set wecc ci buntu baa ngi noonu ngeen mën ci jaar ndaw mu am lu xew. Mhm. actualité muy assemblée. Mhm. xeex bu metti bi nga gis ko ñu koy partagé. ma nee naa leen partagé baaxul waaye loolu ñaawati na ndaw. waaw xam nga lii indi loolu soxna Mbaye. mooy mooy élu bi est-ce que xam na responsabilité bi nekk ci ki ñu ki ñu tabb def ko député foofu parce que am na loo xamante ni ku ko yenu cim réew mm. ak li nga xam ni moom mooy mooy mooy réew ci boppam waaw ñu tànn la teg la foofa nga war leen a càmbaral li nga xam ne noon la réew may doxe mm. taloo fa lenn lu dul xuloo ak xeex mm-hmm. ak xëccoo parti yaakaar naa ni loolu képp koo xamante ni def nga ko li tax ñu tabala xamuloo ko dëgg la te soxna mbay am na lu war a jeex mooy assemblée déggoo gu ma sëkk ci ñi ko sëkk man naam loolu mën la am sax. Mhm. parce que ku ci nekk am na loo. nas ku jëla ak ku jëla. waa mais mais respect. waaw war na mën a am. bi ci desit tamit mooy ñu nekk bon exemple ci xale yi nga xam ne ñuy futur génération bi leen war a relever. dëgg la parce que am na loo xam ne bu ñu ko defee ñoom dañuy jàpp ni euh, léegi yëf yi nii la war a demee. Mhm. bi ci des desit tamit mooy affaire bi du affaire u parti. déedéet parce que mbubbum député képp ku ko sol ñu takkal la drapeau réew mi. Mhm. boo fa demee war ngaa xam ne du couleur parti benn moom moo la fa yóbbu mais réew mi. moo la fa la fa yóbbu. mais xëccoo yi ngay gis yëpp xëccoo parti la. Mhm. ak bëgga a feeñ. parce que télévision yaa ngi lay wone rajo yaa ngi lay wax boo xëyee nekk à la une ci journaux yëpp yooyu tamit réew mi doy la. mais mais mais man li ma jaaxal mooy campagne yi metti na. am na ci koo xamante ni sax maa ngi naan bu borom lu meuf lee de bu yëgoon du dem <laughs> ndax ma damaa jékki-jékki rek seen marakis mi ci kaw. waaw kay yëg ba ca kaw nag kay yëg ca kaw ba ca kaw taabale mu taxaw fa moom. xam nga taabale assemblée. mais dama bëgg a xam ndax xeex bi lan moo ko waral ndax ceeb bi duñ ko yokk la diwlin budget bi duñ ko yokk ndax diwlin bi dañ koy wàññi. ndax mburu mi fi mu toll cher na ci askan wi ndax tool yi amatuñu lu ñu baykat yi amatuñu lu ñu jëmbat ndax loolu lañ doon xeex wala lan lañ doon xeex. soxna Mbaye daal dama yaakaar ne assemblée loolu lañ fa war a xeex. soxna Mbaye daal assemblée moom. wax dëgg yàlla ak yonent bi bokk na ci li ëpp ci xëccoo ba fay ne. Mm. ci sama parti ak sa parti. li ci ëpp loolu la mais bu doon soxla réew mi rek la dong dong jarul xëccoo jarul xeex. Mhm. jarul xuloo mhm. dañuy woote budget kay ki d' na ni d' accord naa ki d' accord nii d' accord ma mais boo d' yu li tamit indil. ay argument yu yu ñu mën a teg tànk mm-hmm. di yow mii lii nga wax nii d'accord ci nangam mais indi nga la leneen mais bu fekkente ni soxna Mbaye ak yow booy dem sa parti nga yóbbaale man bu may dem sama parti mm-hmm. keneen kii dem parti ku ci nekk sa parti bopp rek ngay défendre bàyyi réew mi moom réew mi nga xam ne moom moo la fal muy taxawal mais bu mm-hmm. boobaa problème am na dëgg la te responsabilité député. Mhm. ñoom bu ñu ko xaman am na loo xam ne du ñu ko def ci réew mi. dëgg la du ñu ko def ci réew mi. est mi ngi nii waaw mi ngi nii gis nga image yaa ngi nii. xam nga lii dafa doy waar. lii xam na waar nee naa leen borom borom lu moof la. waaw lay waaxu mu sedd mi ci kaw. vraiment xam nga lii. lii lii waaye sama réalisateur bi moo tax waay. kan ko fi nekk maane ne. macha allah fa tabaarakallah ak ka nekk ci vidéo ba fële. daal dina set image bi daal di ma koy génne sama xel mi ngi ci woon pour ñu génne ko mais lii man dama jàpp Euh, euh, askan wi ci boppam ñoo war a tax nga xeex. non non non soxna Mbaye li ma la wax mën naa leen baykat yi amuñu ceeb. Mhm. forage ba nekk bërëb sàngam yàqu na askan wa ndox ma ñuy naan sellatul taliba yoon yi am na euh, talib meewaan bi ndooy baan ma dimbali ko ci. Mhm. nee na defaraguñ ko ba tey. te ak ak ak sunu tali ñun. depuis jamonoy Senghor la woon. Kër Saalum ba tey gëm a dëkkee ba léegi yoon. te bu digganteem ak Tiwaawan ci 4 kilomètres la. mais ba léegi amaguñu yoon 4 yoo xamante ne amagul yoon. amagul yoon pour nit ñi dugg Kër Saalum waaw. amagul yoon fàkk nañ ko nag mais ba léegi xongul ñuulul loolu nag ñu maa ngi ci tàllal loxo suñu maire bu baax monsieur le maire moomu di si mbeg ndax itamit liggéey bu rëy maa ngi koy def ci Tivaouane waaye loolu yi tamit bu ko ci boole nu jël mënu cee ñàkk parce que nag nee naa leen boo taggee nit ki ne yaa baax génneel ko loo xamante ni euh, bu ko yokkee gën a am way donte xalangu dajul suuf dëgg la mais man li ma wax ne assemblée dama bëgg ku man gaa dama ko gisatul man la ma fa gis mooy njaw ma koddu dina dinaa jéem a wut ko xam. Mhm. nett li ma démbam. dëgg la tey mi ngi ci télé bi marakis yu seer lay sol. jàllaa bi boo xamante ni ak koppati tubarkaal la Maroc la koy jëndi jee ñëw indi ko jëndee ko lu cher. Mhm. waaye nag dinaa xool ca jamono ba nga xamante ni daan na fëgg nit ki di ko ñaan ñeent téeméer. pour bu ma demee assemblée wax ko ko. kii nga xamante ni moom laa nekkal mu nekk député ndax adduna bi moom doom ju ne juddoo na fi. waaye bootaay bu fi way jekk dinaa xawal ndax doomi ëmbal la woon am déet wala taawam bi dañ ko koo ëmbaloon ba pare ko ëmbal bañ pour ma waxal ko ko assemblée dinaa xool kii ndax ndayam ndóol la woon ndax ndayam da daan jaay gerte caaf na président de la république bi mu fay falo ñëpp xam nañ ne papaam gardien la woon yaayam jaay jaaykatu gerte caaf la mhm. te leçon bu am solo la ci xale pour mu xam ne say waajur ñàkk terewul nga ne dinaa am jom ba lii samay waajur nekkee ma dindi ko fi yëkkati leen dafa war a doon leçon ci xale mhm. xam ne sa yaay day jaay gerte caaf sa papa gardien la woon bul ne man menuisier laa war a doon mécanicien laa war a doon ndax sañu koo bañ aw ma pexe mhm. du dëgg mhm. kon na na naa topp ci yoon woow rek jarul may jàng waaye président dafa takk ndigam xam ne doom mooy yëkkati ndey te lan nday toog di xaar pour doom màgg ëllëg indil ko way la mu indil nday mooy wuréy loolu dafa jara yóbbu assemblée te assemblée loolu fa nekk mais mais mais mais na Mbaye li li li ngay li nit ñi di fàtte mooy yow xaalis bi ngay ko fii ci 2 yi waaw ak ba directeur de société bi di fay ko ca banque ba. waaw ak jaaykatu këriñ bii teg saaku këriñam jaay ko. même xaalis bi la. même xaalis bi rek la. te te yow mi ci bureau ba da ngay lebi ndugg. déggoo li ma la dafa am sama benn rak. lebi këriñ. moo am benn jamono moo am benn som bu mu am. waaw mu tombé gàmmu Tiwaawoon. Mhm. mu ñëw ne ma grand man lan laa bëgg def. ma ne ko ah matt de dina dox ci gàmmu gi moom munu ma ah moom ma ne ko waaw. fagul gémmiñam ne la est-ce que man fekk nuru naa la kuy jaay matt. mu déedéet mu daal di dem jël som bi jënd ci matt yàlla dogal mu dox mu am ci lu ëpp la mu njortoon bi mu paasee munu ma léegi lu may def ma ne ko yoon waa ngoog. matt ma matt mi na dox na këriñ gi dox na na <laughs> ngooj mi dox ba tey tabaarkàlla ma nga ca fi mu nekk nii tey faalewul ki nga xamante ni bu weer dee mu dem ci banque bi. foo ko fekk ci lu muy liggéey doo dem ne ko aal ma dara pour ma paas dem ma yenn saa yi ñëw ne ko waa saa yi <laughs> a yi loolu ana xaalis bu mat mi xam nga xel ma njaaloo na yow yaa ngi ko koy digal ca ngaale fekk boobu sangoo <laughs> xam nga mais xam nga xam nga xam nga soxna Mbaye lii loolu rek moo lay moo lay jàngal nii la non seulement am na yar parce que ñëw na ne la grand lu may def dëgg la waaw nga teg ko ci yoon ndigal la rek mën naa barkeel la mën naa barkeel loolu dëgg la waaw moo moo tax euh, rôle rôle député bi daal mhm. fi nga xamee ni moo fa la nekk mhm. campagne ba nu wóolu ko mhm. ñoom ñëpp ca localité bi ñu boole seen genn kàddu jox ko mhm. mu dem teew ca assemblée ba waxtu bu ñëwee ci assemblée bi taxaw war naa xalaat ñi ci gannaawam li tax dëgg la ñu fal ko mu ñëw fii ñu bàyyi parti yi bàyyi lépp te jiite Sénégal euh, parce que soxna Mbaye bu ne moo wax la ni la euh, tey ngeen fal ma rek jarul xeex jarul déedéet su fekkee ne liggéey réew mi dong. Mhm. moo lu tax a jóg am na ci loo xam ne dunoon ko dunu ko jaral. Mhm. li nga doon xam nag mooy tey ngeen fal ma moo tax ngay xeex di xuloo kon am na leneen lu nekk ci. ginnaaw ba ba ba say doom di la xool nga julloon kuuru. waaw sa wes sa aw ne karawaat ba xottiku langeetu def ne maraakis féete ci kaw. loolu vraiment bu dul dara sax nga xool sa njaboot gi nga bàyyi ci kër vraiment vraiment vraiment en tout cas daal war nañu am benn états généraux bu ñu def ci politique yi xoolaat yoon wu ñuy jaar. te boole ko baat bi ñu ubbi woon mooy dal. dal parce dal lu mu dala bi lu mu dugg rek yàq ko. Mm-hmm, mm-hmm. lu mu dugg de yàq mm-hmm. ay programme la ñu teg pour défendre pour woote ay budget pour défendre réew mi loolu nañu ko def ak dal def ko ak yar ak teggin. pour ñu mën a seet fu ñuy jaar pour réew mi réew mi sooy parce que quel que soit Alpha Soxna Mbaye. Mm. Sénégal a fi ne. te moytu xasande xasta bi. waaw ak waxante yu ñaaw yi. parce que loolu yëpp lu mu ci mën di doon it ëllëg day day day jeex moom mu yàgg. mu mu mu gudd ak mu gàtt ci am ala kulli xaalin ñi fi nekk bis dina ñëw ngeen jeexal ñeneen ñëw. Mhm. am na ñeneen ñu fi nekk wala wóor na. wax naa la keroog ni la président Senghor. Mhm. keroog bi ñu ko tëggee ci cercueil-am yàlla wane na benn bind. Mhm. ndax ñetti faare ka fi ne. waaw falu folle ko faatu. waaw président Senghor keroog bi mu nekkee ci cercueil bi faatu na. président Abdou Diouf mi ko remplacé woon folleeku na. waaw président Abdoulaye Wade falu. te boobu président Macky ngi seen biir te euh, Ablaye Wade xamul woon ni moom moo koy remplacer. dëgg la kon nag yii képp koo xamante ni liir nga ko rek. Mhm. am na loo xamante ni waru ko jar ci yow. am na solo waaw képp ku mu doon nga nekk député tey. Mhm. di nga jékki-jékki dëkk ancien député. ancien député ancien ministre ancien de la république. ñu nangu oto ya waaw ñu ñu voilà. kala taxoon di xeex. boo demee da ngay fëgg buntam jël rendez-vous ko gis dinaa la net li benn anecdote rapidement Aïcha rapidement mhm. ci bii xalifa général de Ndiassane génne àdduna ndeysaan dama daje ak benn benn benn benn ancien ministre boo xam ne ci régime u Diouf ci la nekkoon mhm. ma interviewé ko mhm. ma gis ko moom dong mu ànd kenn toppul ci ginnaaw déedéet te ay jamono bu daan génn li ko daan topp kenn xamul nu mu toll ma interviewé ko ba pare ana ma bu ñuul ba déggoo li ma la moom rek laa interviewé ak ay caabi moom moo wax ba pare daal di ko ne dem dugg ci otoom àndul ak kenn vitante yëpp ñu weexal ko waaw te bu njëkk bu ma saan di génn lu ne koy toog yooyu nag ku ko bàyyi xel am na lu mu warul a jar tey ñoom sax seen jamono xawoon naa tane mais léegi vidéo yii am lépp loo def bëccëg day ñëw ñu tegal c'est que dama laa jur nag li nga mën a meer yaay booy dama laa jur parce que foofu laa jëmoon la xew assemblée. Mhm. ka ko génne foofu la toog ci biir assemblée moo ko filmé waaw moom dóorantewul deful dara waaye yor na yëfam filmé ñu commencé partagé fi mu nekk nii internet bi foo ubbi dajak loolu te fii ak ba bu kenn xamul heure bu duggee ci internet bi fekk ko fa man jànq ba ci kër gaa ko envoyé di sama portable waaw <laughs> ma ko jeex na ko muy lu doy waar loo xamante ni jar na bàyyi xel xoolaat jikko yi ànd ak dal la tax ñu fal la gis nga nit day matal mis day day yeggale mission mhm. euh, li ma leen di wax ne nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw la ñu koy wax mhm. ku ko mën a dégg ne ay la yéwén mën naa ne man mënumaa fexe fexe fexe ba sama jikko duñ ko wax sama ginnaaw dëgg la mënoo fexe fexe fexe ba sama sa jikko duñ ko wax sa ginnaaw mm-hmm. ki may déglu ak ki may seetaan itam mën ta fexe ba jikkoom duñ ko wax ginnaaw dëgg la dina ko am ku ko dégg nag ne ay la yéwén mën naa ne ndax nag doon na ko ñuy fàttaliku marqué na ay empreinte am sur la 2STV kon loolu dara mënatu koo dindi mm-hmm. député bi noonu mm-hmm. ki nekk assemblée noonu kilifa gi noonu dëgg la kon yëf yi nañ ci bàyyante xel sóoraale njaboot gi ngay bàyyi ginnaaw sóoraale ne ëllëg bu mbir amee te man li ma gën a metti mooy mhm. yàlla tere yàlla tere bu ñu ne benn autorité génn na àddina mhm. doo xàmmee ki ci pouvoir ak ki ci opposition dëgg la ñëpp ay jaxasoo daal di dem yóbbu seede bu rafet mhm. donte bokkuñu woon ak moom parti lan la ñuy wax vraiment bokkuñu woon parti waaye nag seqoon nañu nangam seqoon nañu nangam ku baax la woon ku baax la woon mbaax googu ngay wax ci moom ak la ngeen seqoon lu teewoon nga dundoon kook moom ci àdduna ci rafetal ci bu ngeen dajaloo même bu ngeen waroo ay kàddu mais wax leen ko ci waxin bu rafet hmm. yaakaar naa ni loolu am na ci solo waaye daal internet bii hmm. dina toj réew mi hmm. seen émission coow li coow li à ne pas rater xaw ma dimanche lay doon xaw ma dimanche bi xaw ma dimanche bi ci topp waaye daal macha allah wax nañ ci whatsapp lañ ko jëloon jagleel ko intégralement parce que fi mu nekk nii mooy toj réew mi te nag posé naa ci benn question mooy euh, nga daan jot nit daan fay cinq mille bu dee ku nekk bitim réew tey jii nga mën a wax ak moom toute une journée boo xamante ni doo fay dara. Mhm. gratuité boobu à quel prix lay doon. Mhm. te yaakaar naa ni. Mhm. Euh, Njaw dama lay bàyyi nga sànni foofu la temps que suñu réalisatrice euh, Mané. Euh, kaleel ñu sunu élément ñu mën ko seetaan. ubbi téléphone bi gaa yi mën nañ ñu dab ci 88 628 14 13. su ko defee ñu àndandoog ñun ci émission bi rote ki seen xalaat waaye itam lu jëm ci sunu wàllu ndàmpaay itam mi ngi fi te sunu minute set ci incha allah dina ñëw à moins quart. Njaw foofu. soxna Mbaye daal dafa am lu nu gane si. waaw lu loo xam ni it danoo dab ci jamono. Mm-hmm. muy téléphone. Mm. mu nekk outil boo xam ni nag am na njariñ. Mm-hmm. ci boo ci yemee ci li tax outil bi jóg. Mm-hmm. mais duñ la ca bàyyi. moo am ay données yoo xamante ni da cee ne. données yooyu nag boo ci duggee. dem ba ci egg ci foo xamante ni loo maîtriser wu la moo lay dugal ci yenn kàmb yi. te soxna Mbaye ñi ngay gis ñëpp. ñaare ñuy am yenn problème bi parce que damay dégg euh, Serigne Mansour Sarr. ñu ngi koy nuyu bu buudi di ko nuyu di ko ziar. muy wax muy wax wax bu am solo. mooy muy wax ne ko xam ragal. ko xam ragal. merci ko xam rek ragal. Mm-hmm. gis nga jël yu metti yi ngay gis nit ñi di ko daanu ci whats ci whatsapp. Mm-hmm. di ko daanu ci internet bi yëpp lu ci ëpp la plupart ñi jàng dégg du leen daal. Mm-hmm. parce que ñoom xam nañu conséquences yi ci nekk. ah waaye mais njaw ko du. gis naa fi journaliste bu futtiku de te jàng na de. waaw d'accord mais mais mais xam nga xam nga dafa am ñaar ñaar yu am soxna Mbaye. Mm. ki jàng te amul jikko raba ko tane. yar bay des. waaw ki jàng amul jikko. Mm-hmm. ko tane. Mm-hmm. kooku jàng na ko nii rek ci théorie. Mm-hmm. mais boo ko pratiqué wul jariñu la dara yaa ki ki xamul aani wala wala ubbee yéen a yem. tubaab du mu njàng. non non xam nga jàng boo mën a jàng. te fekkul jikko jiitu fa rek. Mhm. njàng ma du la amal solo. dëgg la. moo tax ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. xam ni yëf yi du fawukaay mais soxna Mbaye léegi téléphone nit ñi dañ ciy faw. téléphone pour wax farata la rek. Mhm. mais vraiment nekk ci téléphone di ci wax pendant presque une heure de temps mais loolu mais bàyyi mbaax mbaay ji euh, radiyallahu anhu. yal na ko yàlla yërëm moo daan wax bu bu bu bu nee na wax bu jeexee asaki gën waaw. parce que problème yu bari jeexee ñaaw day ñaaw mm-hmm. ndax mënuma jël sama téléphone di ci wax pendant une heure de temps une heure trente di photo woog di photo woog kii li ma kii euh, sama benn waay di wax ni xale yëpp daf na koo gis mi nga naa waa gaayan yaa ba gën a xam yaa ba gën a nangam topp ci àll bi dem mais looy wax amul benn njariñ man man man man aw ma euh, en toute sincérité soxna Mbaye mm-hmm. man aw daanaka jotu envoyé WhatsApp bi ma ko mënee yàggul parce que parce que bugguma lu jël sama intimité. Mhm. man toujours damaa bëgg a moom sama bopp. Mhm. xam fi ma jëm fan la. Mhm. am droit boo xamante ne dama koy xool ci li may def ak fan la ma jëmee. mais bu fekkente ne da ngaa bàyyi jamono fëkk la phénomène yii nu dab lu lu jóg yóbbaale la soxna mbay damaa xëy benn bis. analyser nawetaan. dama ci xobe woon. dama xobee woon ci suñu équipe bu ma sànni football damay mm. tensionné ba guddi gi daanaka du ma nelaw. Mm-hmm. mais ma dem ba gis stade may seetlu. ndax man yàlla bind na ma may may seetlu bi mel na. Mm. ma gis ñu football gagné gis nga woojooju ci terrain bi. waaw maanaam woo gagné nañu. waaw loolu bu xisee paase rek jeex na. amatoo ci leneen. amatoo ci leneen. lu dul poussière ak tilim ak léeg ñu xaañ la sax. ak xale ñi la ci manque de respect. ñi la ci doon wut mënuñu laa am ñu jaare foofu dëgg la ma loolu ma bàyyi mhm. yu ci bari ci noonu ci laa ciy doxe mhm. nit nag dafa war a toll foofu di màgg di di di di yar sa di yar sa sa sa xalaat mhm. di yar sa intelligence ci lu mu doon loo xamante ni jàpp nga ni lii jëmewu ma fenn ma bàyyi ko eh, WhatsApp bii noonu la mel ñu ci bari amuñu benn jot foo amuñu benn temps boo xamante ni mais soxna mbay da ngay dem toogandoog nit nga toog nii mu toog nii kenn du tal sa borom kër goo dugg léegi daanaka ku ci nekk man ngaa gëj a gisanteeg sa morom li tax nga koy gëj a gis mais yéen ngi toog nii mais du ngeen wax soxna mbay gi ci téléphone maa ngi sama téléphone kee ngi ci téléphone yenn saa yi nga génn dem ci génn kër goo am wifi fekk fa lu mat trente boy <laughs> yoo xamante ni ñëpp nga toog waa taatu miir ba ca taatu miir ba mais loolu yi tamit kenn xamul lan la muy lu am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax yaakaar naa ni introduction bi ci li nga xamante ni mooy euh, <coughs> fait de société yi tey am na solo comme ni ñu koy defee àjjuma bu nekk rek euh, du laal dara ak euh, sunu thème de la semaine mhm. di wax ne Tafa Thiam nañu xoolal téléphone bi su ko defee rek gars yi mën a dugg participer ci li nga xamante ni jot nañ ko indi waaye nag sañ nañoo dem ba régie ànd ak ñoom ñu jébbal ñu suñu élément ñu seetaan ko su fekkente ni yemb na euh, bu ñu ñëwee itam jaar ak yéen euh, ci 88 628 14 13 wala numéro international bi ngeen doon seen xalaat réew mi daal yéeme na. ñu delluwaat ko ci biir kër yi parce que nag sëy yi fan yi moom les sey wax bari na démb nag maa ngi gis benn message boo xamante ni yooyu ñuy toftal photo ak audio léeg-léeg sax ñu def ko mu bañ a nekk ojo boo xamante ni audio kooku la wala photo kooku la waaye daal xale bu jigéen la boo xamante ni dañu wax ne dañ ko takkal euh, euh, ñaareel mu ngi dëkkee côté Kaffrine mu dem ne mu ca teen ba enterré nañ ko loolu après gàmmu gi la defe naa dama dégg loolu mu doon loo xamante ni nag lu doy waar la lu yéeme loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, ci ñaawte fii la bokk am keneen koo xamante ni faat nañu ko ni ki bërki démb ku jigéen koo xamante ni da doon liggéey ci bërëb yi ñuy envoyé xaalis borom këram di dawal Jakarta ca Kaolack daal di koy rey mu fekk ji néew bi nga xamante ni reyoon nañ ko ci Espagne dimanche passé te jaba jëkkëram moo ko rey encore muy lu doy waar loo xamante ni dangay dem ba sa thème de la semaine sax doo ci mën a wax kon li ñuy def rek mooy ñu àndandoo ak régie njaw nga xool ki nga xamante ni hmm. jabaram ñetti jëkkër la am <coughs> yéeme na de. man ngay nopp daloti na moom man di lii. <laughs> ñu dem xool ko. <laughs> soxna Mbaye na nga def. waa man dama la bëggoon na euh, nettali benn histoire te bëgg naa ñu am rendez-vous ñu daje ma indi la tout ce qui est preuve parce que man dama amoon na euh, soxna soxna si nag euh, woykat bu mag la nekk ci Sénégal. waaye soxna si daal fi mu ne moom yor na ñaari jëkkër ak man ñuy ñetti jëkkër waaw man nag divorcé wu ñu tàggoo ñu demandé na ma divorce ma bañ bi mu jógee ci man bi ma bañee mu déménagé dem ut beneen jëkkër bi mu nekkee jëkkër jooju moom it yàggul mu wàcc ko fi dem uti jiwaat beneen jëkkër fi mu nekk nii mu ngi ci beneen jëkkër boo xamante ne jëkkër jooju yóbbu na ko màkk ren ba mu dem ba ñëw mais fi mu nekk nii mu nga Guinée elle vit à l'heure actuelle fii may wax ak yow nii fi mu ne mu ngi Guinée dem na màkk ren ba ñëw te maag moom divorce suñu am na keneen di tamit fii ci senegal kii moom it divorce wul ak moom ba pare dem na amaat beneen jëkkër en Guinée encore te mu ngi dundax kooku mais maag moom nag gëj na ñoo gisee depuis 2012 waaw la ñu ko ci gisee mais c'est une grande histoire boo xamante nii euh, bëgg naa daal bu fekkente ni mën na ne. waaw bu ñu joxoon de rendez-vous man mën naa ñëw ak tous les preuves samay photo moom samay photo de mariage ak moom ak sama acte de mariage bi nga xamante ni def nañu ko mariage bi foofu ci parcelle googu la ñu ko doon defee dégg nga avec tous les papiers yi nga xam ne mooy mari acte de mariage bi nga xam ne témoins yëpp signé nañu ko jusqu'à présent nag divorce suñu parce que daf ma ameen un million six cent mille ma laaj ko ko mu bañ bi ma demandé divorce ma ne ko non. jërëjëf Wareej yi gis ngeen ko mi ngi noonu mu nekk nag lu doy waar euh, jigéen ñi daal war a xoolaat seen bopp nag. parce que léegi réseaux sociaux yi euh, ñu ngi ci da wax léegi téléphone dafa am njariñ. Mhm. gis nga léegi nit day tollu lu wi am kaam. Mhm. indil ñu les preuves. dëgg la danañu fexe ba enregistré ko. Mhm. kon foofu WhatsApp bi man jariñ na ma. dëgg parce que loolu moo ñu dal ci kii dëkkul ci zone yi yëpp. mais fa mu dëkk fekk nañ ko fa tourné ko jël ko ak euh, indi nañu ko ci ci ci ci whatsapp bi ñu mën ko jël transféré ko lay mbeng mu defaraatal ñu montage bi hmm. kon foofu téléphone am na njëriñ dëgg euh, ñu ngi ci jaajëfal bu baax a baax nag lay mbeng mi nga xamante ni day def kéemtalaayal kàttanam pour kër gi jëm kanam hmm. yàlla na ko yàlla jëmale kanam en tout cas lépp lu ñu fi ñaanal yàlla nañ ko bokk ak moom ndax macha allah lu ñu benn yoon ci liggéey bi mais njaw jommeeti nga de joomeeti naa ndax ana ana ngor mhm, mhm. ana ngor ana ana diine mhm. dégg naa sànq ki doon wax ni ki ko mujj takk takk na ko ba yóbbu ko màkk màkk waaw man lu mu wuti màkkaa ma jaaxal hmm? non si am naa problème boobu foofu parce que ku am fitu am ñetti jëkkër ak li ñu wax ci sëy ak ni sëy sacré ak jigéen ni ko sunu borom respecté wax dëgg yàlla kooku su mënee am fitu toll noonu te nekk koo xamante ni xaw dégguma tubaab mais defe naa porteur de voix la ñuy wax. Mhm. nekk koo xamante ni. la yaa ngi woy. Mhm. di gindi nit ñi. ci li nga xam ne moom ngay woy. Mhm. nekk exemple ci réew mi parce que am na ñu la bëgg ñoo xam ni boo xisee génn ci télévision bi. ñu tàggoog seen sago. dëgg la lu mel noonu soo ko mënee def ci am réew. <clears throat> jaadu na. franchement jaadu na. Mhm. moom ñu corriger ko. moom woykat <coughs> waaw mais est-ce que jëkkër ji ko takk njaw xam na ne kii muy takk amoon na yeneen i jëkkër parce que léegi jóge ci réew mi dem beneen réew créer fa sa lu la neex dafa yomb de. xam nga man awma problème ak jëkkër yi. man man jëkkër ji moom moom moom moom man man jëkkër yi waxuma leen dara de. Mhm. man xam nga ban problème laa am. parce que amul benn góor boo xamante ni. ak loo loo dëng dëng dëng. ame woowu fit wu toll ni fekk koo xam ne wër na la ne am na jëkkër nga dem di ko takk ci ku jigéen ki la. ku mhm. jigéen ki laa amal problème man. problème lu tax moom moo nu yàpp. lu mu wuti màkk moom moom danoo yàpp. parce que warul a nekk ab woykat fii ci réew mi nu bëgg ko suñuy doom di ko seetaan suñuy sœur ak suñu ñëpp. moo mën a def doyadi ko toll ni gu tolloolu ci réew mi. Mm. parce que dafa tooñ jigéen ñëpp soxna mbay ah am na loo xam ne c'est pas normal man de wax dëgg yàlla nag tax na fi nekk nii jigéen ñëpp la ñu buub yemale ci benn jigéen ñëpp am na loo xam ne dafa tegiwul fenn. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax bu dee bëgg alal jaru ko. déedéet su dee taar ngay topp jaru ko. déedéet bu fekkente ni loo ci dàq doo ko dàq. Mm-hmm. sa der moo ci yàqu. moo ci yàqu sa deru njaboot yàqu ci. dëgg la te moom daf ñu ameel daf ñu ameel ak nun waa réew mépp parce que dafay nekk kuy dund ci culture ñu bëgg ko di ko déglu. Mhm. muy woy loo xamante ni ñëpp dañ naan lii neex na. dëgg la mu di ci man mu di ci mën a orienté réew mi. Mhm. kooku nag bu ma nee def doyadi gu tel noonu mais finalement ñun di fan la ñuy tegati suñu tànk. xam nga da nga ne lii neex na dafa xaw a laal ci ay yenn woyam sax. waaw lii neex nan nan bàyyi foofu. waaw tam man man man yaa man xaw ma sax ku ma doon. mais daal man li ma wóor ba wóor ma mooy man sama man tooñ na ma man. Mhm. man personnellement tooñ na ma. na keneen ku mel ni man. que bu nu sañoon. suñuy jigéen fu nu génn mat sëkk li nu doon. rawatina ñoo xamante ni dañuy génn nekk ci international bi non nekk ambassadeur ñu naan doomu Sénégal lañu. nekk doomu Sénégal booy hmm. dem am na foo xam ne boo fay dem drapeau réew da lay topp. dëgg la dëgg la mais ku mel war na nekk exemple ci réew. Hmm. waroo topp sa taar ba lu la neex def. Hmm. waroo topp sa bëgg-bëgg. poos ba lu la neex def am na koo xamante ni boo fa xisee toll réew mi dañ lay xool amatoo droit mais euh, yaay mbay yow mi du amatoo droit ci lu la neex def am na loo xamante ni fi mu nekk nii soo ko defoon réew mi futti ko xeex ak yow. Mhm. parce que sañatuloo ko ndax bët bi ñu lay xool moo tax. yow de yaa ngi bëgg xeex ndaw si te gisoo ko. non si ndaw si moom vraiment mere naa ko trop. <laughs> ba deux mille non xaw ma fu mu mais mere naa ko parce que man euh, dama nay ci jigéenu Sénégal. Mhm. ba bu ma sañoon lu baax ah, rek laay dégg. ci yow mas naa ko wax fii benn jigéen de ma ne ko jigéen day nay ci yaramam. waaw. day nay ci yaramam. fekk booba dafa bokk ci jigéen ñooñu nga xamante ni dañuy akolaat. waaw xëy na nag ku nekk ak ni ngay gisee. dëgg la waaye daal man nee naa leen. Mhm. man seen góor ñëw moo xam mu costume moo xam mu mu daraaw ne daraa yi sax bariwul ci ñu ciy def noonu mais costume mu ñëw beneen culture moom nga jëli indi moom nga soloo comme ni Tunkara di wax nga xamante ne lu ñu sol léegi ñawewuñ ko ci réew mi jigéen ji ñëw ak ni ko yàlla bindee jël poitrine am teg ci poitrine ku góor ki pour def nii pour akolaat. sequ leen dara man daal loolu loolu moom man day may daggaloo sama yàpp yaram. franchement mais mais yaay may loolu leneen da caa mën a leneen da caa mën a. mën a ndaw si sa poitrine bii. mun naa ma ne ko kii day sàcc plaisir. loolu laa ko wax mu ne ma yow da nga fiir a fiir a fiir ba dof ma ne ko non da nga war a fiir ci sa yaram. yaay mbay daal jigéen la muy rawee moroom ma mhm. buy sangu du ko summi déedéet jigéen lii muy rawee moroom ma ci taar nekkul ci maquillage c'est-à-dire il faut jigéen ñi ñu xam loolu. dëgg la xam ne ñun duñu ay tubaab. déedéet xam ne ñun dañu am cosaan loo xam ni bokkul ak yeneen cosaan yeneen réew yi. te maanaa lii nga xam ne moom la ndaw siy def. loolu amul benn cosaan bu ko rafet. déedéet benn cosaan du diine jullit du diine du diine chrétien du aada ju rafet yi du aada ju rafet. waaw dëgg la waaw kon nag li nga xam ni moom lañu war a joxe bon exemple ci sunu réew mi. Mhm. Eh, dinaa koy faral di wax bis bu ne. Mhm. soxna Mbaye réew moo xamante ni ko tudd mu ne barki sëriñ diw. waaw te bu jëfandikoo nga jaaxle. parce que même yii di am ci sunu réew mi ci wàllu rayante beeg ñu may la eh, ñaareel. nga dem soode ko mbaa nga jam ko paaka wala nga taal lépp. wala nga am daje dem dajeeg moom Chine ngeen di xeex di màttan. voilà loolu yëpp li ko sabab doy waar. xamal li ko sabab mooy la. mooy la ñàkk jikko. sunu borom bi muy tàgg bi muy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa dafee bàyyi maam bàyyi fi bàjjan bàyyi fi ndey bàyyi fi bàyyi. li mu ko taggee mën ni ko xool naa la ba seppli la xam naa ne sa jikko rafet na sa jikko rafet na. pourtant xam na ni. ay ndey ki bàyyi ki maam mi ngi fi. Mhm. mais mu bàyyi ko fi dem jëli jikko. Mhm. parce que jikko mooy li nga xamee ni moom moo am solo ci nit ki. Mhm. bu ko nit ki amul nag lu ne mën na ko def. nit ki bu amul jikko. jikko bu baax bu baax lu ne mën na ko def. waaw kon nag ñu ñu ñu ñu bàyyi xel. ci loolu mais léeg-léeg poñetu àdduna it daf ñu koy jaral njaw bëgg naa ñu jeexale foofu laata bu fekkente ni waa Madaar egsi nañu. laataa ñu leen di dalal ci seen i minute euh, set wecc yi. ñu ñëw ci foofu. léeg poñetu àddina daf la koy daf la koy jaral nga dem naw nag indi doom joo xamante ne yow boo ko ne jàkk xool xam ni baayam bi juru ko te nee naa leen ab taaw dañ koy leeral xam nga wax naa la sànq ma ne la xaste assemblée nii nga juddoo ak nii jaru ko fi ndax doom bu ne juddoo na fi te bootaay bu fi way jekk amal njariñ rek bootaay bu fi way jekk laa la xamal soxna Mbaye mais dama la wax ne la ab taaw da koy seet da koy segg dëgg la bu dee jaaykatu këriñ bi moo ko moom. Mhm. yóbbu fa. dëgg la su bañee nee ko yaa ko jur. su nangoo nee ko yaa ko jur. amal courage bi. amal courage mhm. comme am nga courage jox ko sa bopp. Mhm. fu mu mënti doon rek neel foofa la. dëgg la bul ca alal ne borom alal ji kii laa soxla sooy na kii buñ ma ne bu ma déggee ne moo bu ñu déggee ne moo ma ëmbal mën naa ñaaw sama digganteeg moom parce que dañ may xeeb. kon naa ko yóbbu ca kële. dëgg la kële jàppee ne comme jaaroon nga ca moom njaw ma ko du sàmb la. na takk. njaw ñuul kukk mhm. xale ba juddu taaw ba di pël fuuta <laughs> njaw nangu woon na ëmb bi ba pare du dellu ginnaawam day yaakaar ne xeesaayub lii rek ko jàpp waaye bu màggee dina ñuul <laughs> xale bi màgg di gën a weex doom ya ca topp nga xam ni njaw moo leen jur directement gàtt dëgg la ñuul kukk tooy <laughs> te loolu mu ngi dal ñi nga xamante ni nañu ma baal hmm. jigéen ñii dem di déplacé wu di tukki ak yooyu hmm. ak dem réew mi am fa jëkkër ñëw réew mi am fi jëkkër damay def liggéey sàngam te permettre wu ma toog ci réew mi te dara waral lu ko lu dul nëbb ak caay-caay. dëgg samay xarit la ñu dama leen bëgg ndax dañu am jom bëgg lu baax. Mm. waaye nag sañ nañoo soor nag yi nga xamante ni. moom mooy xew te mi ngi fi. mbokk ngi ci ligne bi ñu jël ko rapidement alo salaamaaleykum wa salaam wa rahmatulah. naa la. soxna si. waaw maa ngi woote Thiaroye Dia Fatou. Thiaroye. bi naka la. Fatou Sow. waaw Fatou yow rek la ñuy déglu saw. waaw li mhm. am na solo lool lool jërëjëf soxna Fatou. ndax lii moom dafa nekk loo xam ne dëgg yàlla. yëkkatil kàddu gi soxna Fatou wala gaa yi yokkal ma ko. dafa nekk dafa nekk loo xam ne dafa xaw a bu baax a baax a baax. Mhm. surtout ci ñun jigéen ñi wax dëgg yàlla. Mhm. waaw ma lay ne tamit euh, benn instant tamit ah. waaw. léeg-léeg jigéen. Mhm. góor dina ko def loo xamante ne nii mu bëgg caa génn góor ña koñe. waaw du ma la may sabaat. allo. du ma la waaw ne la du ma la may sabaat ne la du ma la may sabaat. tey ak ëllëg waaw. waaw te man tamit benn irresponsabilité bi ma dégg ci waa ji tamit mooy naka ngay mën a amee sa jabar am ci moom droit nga mën a toog 2012 ba 2018 sa tegante leen bët nga ne sa jabar la. d'accord. na góor ñu am tuuti euh, responsabilité ci seen bopp tamit. te xam nga sëy ci defe naa ni suñu sang boobu toog. waaw euh, dina ci am loo xamante ni xëy na dina ci àddu waaw sëy day am benn période boo xam ne bu ko eggee waaw yow ku góor ki wala ku jigéen ki na nga war a jàpp ni sëy moom moomatoo jabar ji nag mu ngi noonu du dëgg indi na tem semaine prochaine parce toll nga ci bànneeku sa jëkkër toll ci bànneeku ngeen mën a toog six yoo xamante ni nii ah, gisantewu leen voyage tegu leen ko ci voyage boo xam ne xëy na concertation la ba sa jëkkër mën la mën nga mën ko bu mais yaay yaay une chose yaay une soxna si si artiste la waaw ay clipam mi ngi jàll ci dëkk bi mais bien que nag bariwul tànk Sénégal fii. dëgg la loolu tam faut le dire. dëgg la. waaw. waaw waaye ak lu mën a am tamit ah. Hmm. ah. waaw. man de jàpp naa ni sëy moom wax fa dëgg yàlla dafa am ay kenn yoo xam ne moo ko téye. dëgg la te bu ca benn manqué rek man jàpp naa ni sëy dafa amatul ko. dëgg la waaye nañu xool itam la ca biir soxna si tamit ban position la taxaw ndax ñaan na baat may nañ ko ndax am na loo xamante ni nii dem na ba mënatu ko wala wala lu ñu demee te moom mënta wax parce que itam benn version rek la ñu xam ñun mu dal ko ci jëkkër ji ñëw wax ak geneen ji nekk Dakar. mi ngi noonu. Mhm. dëgg la nañu jéem a seet loolu. dëgg la ñu leen di sant nañ la bu baax a baax a baax. jërëjëf merci beaucoup c'est ça l'émission kër gi parce que idée yi il faut muy ñëw. du ñun li ñu xalaat rek wala li ñu wax loolu moom mooy dëgg mhm. idée il faut muy ñëw mu nekk loo xamante ni euh, débat lay doon lii c'est très important maa ngi koy remercier bu baax waaye nag est-ce que loolu moo ko dal ci jëkkër ji mhm. ki ñëw wax mhm. ak keneen ki nekk dakaar parce que certificat de mariage yi photo yi ak lépp mu ngi ak man c'est-à-dire dafa am loo xamante ni doo ci dem à fond dëgg parce que dafay daal di yegg ci ki mu doon te yàq taxu ñoo jóg dañuy defar mais su fekkente ni euh, ni mu ko waxee loolu moo ci dal jëkkër ji dal ci jëkkër jeneen ji nekk dakaar mu soog a dem ci jeneen jëkkër ji ci dëkk bi parce que dama leen ne nañ dagg dëkk bi mu nekk loolu itam yaa problème mais ku jigéen ki itam am na ci part de responsabilité bu rëy góor ñi am nañ part de responsabilité mais jigéen ñi am nañ part de responsabilité parce que l'islam bañ coow yooyu moo tax mu indi su dëgg la mhm. soo mhm. la baat nga may ma ko soo ma ko mayul ma summeeku te su ma summee ko damay am droit sëy beneen sëy yaakaar naa ni loolu dégg nañ ko ci gars yi ma la nga développé foofu le temps que ñu dalal ki nga la soxna Mbaye loolu li soxna si wax mhm. dëgg la ndax wolof daf ne layoo pax la ku wéeti yay waaye bii du du du layoo waaw du layoo déedéet bii du layoo mm, jëlal ma kooku ci ligne bi la tant que ma installé gaayen bi wala wala ma jël ko mbokk allo jël ko <laughs> parce que téléphone bi dafa yéex a baax allo allo bonjour oui bonjour euh, comment allez-vous sant yàlla bu baax alhamdulilah bon je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire je suis un Sénégalais oui oui bon je suis les émissions depuis la Côte d'Ivoire d'accord vous suivez l'émission depuis ouais, la Côte d'Ivoire oh. oh. ah là ñu ngi koy xaarandi mën nañoo dab ci biir émission bi du yàq dara rek suñuy minute set wecc yi vraiment bëggoon nañu jot contribution kon njaw ma bàyyi la rek responsabilité bi nga xamante ni ku jigéen ki moom la am. ci même parce que man maa bëggoon bëggatuma. ku xeeb wax jooju moom. sa ki nga aimé moo la xooxul. dëgg la te góor war naa am mat gu toll ni bu jigéen taxawee ne la maa bëggoon bëggatuma. Mhm. sa morom laa bëgg. amal ngor gu toll ni jàpp ca yàlla parce que nee naa leen la bëy daan dundee ba sax sikkim mhm. mën na cee jàpp ba yeewu faatu mhm. njaw xam nga man ku jigéen gi lan moo tax mun noo déggoo maa ngi mm. bu fekkee ne noonu benn jëkkër la waaw problème doo am mm-hmm. mais ñetti jëkkër mm-hmm. loolu dafa doy waar dëgg la ñett lañu waa ñett ñetti nit vraiment loolu dafa doy waar man ko mm-hmm. loolu rek moo ci sama problème li nga xam ne daal moom la ñu war a def mooy mooy yemale bëgg-bëgg yi yemale bëgg-bëgg yi. Mhm. yemale vraiment euh, li nga xamante ni moom la. moom parce que itam ñetti ñetti ñetti jëkkër moom. waaw ñetti jëkkër moom. grave kenn mënu ko layal kenn mënu koo layal man daal moom. Mhm. sincèrement parler am naa ak moom problème. am naa ak moom problème ci. waaye nag bàyyi leen koñe may ma sama baat duma la ko may tey duma la ko may suba ba géej gi des walaat duma la ko may foo yéeg wàcc duma la ko may lu tax lu tax loolu. non soxna Mbaye loolu yëpp mooy góor gu amul personnalité. góor bu amee personnalité te li war a nekk ci moom nekk ci moom may nekk ak sama soxna ñuy bëggante ñun ñaar ba soxna si ni ñett ni moom bëggatul. Ah. parce que sëy jàmm la. jàmm la bu jàmm bi amatul booy boo ñu bàyyi ko. parce que yenn problème yu bari moo lii tax yenn problème di am lool la. Mhm. sa jabar jéppi na la te moytul ma jigéen ju sës ci miir bi. Mhm. ku jigéen jigéen bu xësee sës ci miir bi wattul ma ko. boo amee sa xaritu gunóor doo ko sës ci kekk. jekk na jeex na te mas naa dégg ca sama sang ba Serigne Mouhamadou Moussa nee na ko sa yaakaar tas nga ñeme. ku sa yaakaar tas nga ñeme njaw nañ teg foofu sunu baaraam loolu daal moom gars yi nañ ci bàyyi xel waaw koño bi nañ ko bàyyi ku ñaanati baat nañ ko ko may bu ñu ci mënee dem waxtaan àllam yaabal dama dem ba loolu mënta nekk libéré ko parce que yàlla mi bind sëy moo bind parce que donte bëgg ko mais bu ñu demee ba mu sës bu naree jur leneen libéré ko mu dem ci jàmm. mën naa jur faatante de jamante paaka yi bari na lool te loolu yépp nag da koy dégg ci ñi nga xamante ni dañoo am problème. rek yar problème bi mën naa indi loolu incha allah dinañ ci ñëwaat semaine prochaine ndax euh, li ñuy waxtaanee daal ci biir sëy yi daf ci am solo. Mhm. kon njaw ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm bu baax a baax euh, Maodo saar euh, nga xamante ni doomi Tiwaawan la macha allah Serigne Maodo saar ñu koy nuyu bu baax di ko ziar. Mhm. waaye itam di ziar bu baax a baax itam ki nga xamante ni rek mooy Serigne Mansour Sarr mhm. bu ziar sama sëriñ ba sama xarit euh, euh, papa Mbay si euh, Abdou. Abdoul Aziz di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal njabootam gépp rawatina soxna Penda Dial. ñu yegg si ci sunu minute set wecc waaye nag profito Jama Kanté fi jaaroon. mu nekkoon sunu invité tradipraticien bu mag way juróom jigéen génn àddina ca Bakel ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax a baax tey nuyu nag ki nga xamante ni mooy Marème Ndiaye nekk fële ca Rosso Sénégal di ko boole nuyoo beeg Fatma Ndiaye madame Diaby ñoom ñëpp ñu nga Sénégal ñu ngi leen di nuyu te leen ziar. sama grand maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maman. waaw tey danga nga maskaw pour doser ma. <laughs> Eh, maa ngi lay nuyu di nuyu ah, Sénégal gépp di nuyu képp koo xam ni yaa ngi seetaan des 2STV. Mm. di leen ñaanal jàmm di ñaanal sunu réew Sénégal jàmm. di ñaan yàlla na fi yàlla sotti jàmm. amiin kàddu yi rafet na parce que da ngeen di yeete. Mhm. Euh, te kuy yeete nag. sunu mhm. borom rek moo lay fay. Mhm. Euh, donc di leen fàttali nag li ñu tax a jóg xam nañ ko muy sunu produit bi nga xam ni mooy Madaar. Euh, di fàttali ñëpp ni Madaar mu ngi ci foir bi. xam ngeen ni foire bi tijji na euh, bu ñu demee fi nga xam ni mooy stand marocain yi dinañ fa fekk Madar seen stand mu ngi foofu mhm. ànd seeg Babacar Diop ak bépp produit boo xam ni Madar da koy liggéey kon gars yi dem leen ngeen xooli ji kon Madar dafa yegg ba Maroc madaar mu ngi fépp Madar mu ngi fépp partout mu ngi fépp ni nga koy gis ni est-ce que xam nga ne Madar dem na ba Màkka ah makkatal mukarram waaw borom restaurant yu mag yi waaw nga xamante ne dañuy yóbbaale seen i bagage ak yooyu gis nañ ne produit yi fa nekk doyu leen ci raxas mu ngook ñu ñëw jël madaar yóbbaale yóbbaale lu ñu am am excédent de bagage madaar la waaw góor waa HD dafa nekk lii dafa nekk produit boo xam ne xam nga mhm. comme ni ñu koy faral di waxee naan ndimbal jaboot waaw euh, boo gisee ñu naan ndimbal jaboot sakkan bokk na ci mhm. aussi li nga xamante ni mooy baax bokk na ci parce que produit madaar boo jëfandikoo waaw euh, da ngay gis ni carrément euh, même booy fóot ci say yére mhm. da gis ni yére yi ngay fóot Euh, jafe-jafe xam nga bu njëkkoon da nga daan gis suñu maman yi dañ daan ut saabu xeme. waaw yàq seeni yére. yàqaale loxo yi mu dëgër këj nga solal ko sa doom yére bi naaj bi tàng mu commencé am ay picc. nga naan dafa siti fekk booba xeme bi moo koy sonal. d'accord bu naaj bi tàngee nga gis sa yaram bi commencé mbeexe fekk li nga xam ni mooy mbeexe mooy li mel ni ndoxu xorom di la dugg euh, nga xamante ni fàttali nga ma sama góor ga bu baax yàlla na ko yàlla yërëm dafa wax lu am solo baay am bés mu ni ma mhm. nit dafa joteek jëkkëram. dem ci baayam di ko ko kalaame. Mhm. ba mu àggee mu nekk kilifa yooyu nga xamante ni loo leen wax dañuy xool la ko indi. analise ba mu ngoog ba mu ko waxee baay ba. Mhm. mu ne ko lan moo waral dóor ya. Mhm. parce xam na ni la waral dóor ya bu ko doom ja deful woon dóor ya du am. dëgg la donc kon jigéen ku nekk na nga sëy. Mm-hmm. nanu sëy mel ni sunu maam yi mm-hmm. nanu sëy xam ni jëkkër ku ko bëgg ba ñu may la ko mm. sëyal sëy moo la war moo la war sëyal ba dee mm. parce que jëkkër du morom sang la waaye jabar dañ koy yërëm sëy nag mën nanoo sëy te du àgg police du àgg tribunal comme ni ko soo baay bi waxee ki la bëgg ba sëy ak yow bu la bëggatul ba ko mu dem nga seeti ki bëgg nga ànd ak moom ñu continuer ci mada bala ñoo continuer mm-hmm. yow dama lay jël ci kër gi <laughs> <laughs> Eh, waa ma daar ñàkk nañ la tey. <laughs> ay si ñu continuer ci Madaar. ok ñu continuer ci Madaar. ndax xam na ni. Mm. Euh, comme ni nu ko waxee ni foire Madaar nga fa. ak mm-hmm. ay produits boo demee di nga fa fekk Madaar Renzo. Euh, di nga fa fekk Madaar Javel antibactérine. di nga fa mm. fekk Mera bi nga xam ne kii dafa ànd ak système flore. pâte dentifrice bi. Mera te li ma ci jaaxal mooy. Euh, du du ñu bari lu ñu ciy wax waaye. parce que gars yi xam nañ koo ba pare waaye bu ñu fàttee boros bi nga xamante ni moo nekk ci biir. waaw parce que ak njëggu xéewale gi. xéewale gi xam nga euh, nee naa la xetu gémmeñ jeex na. Mhm. mbuuraan jeex na. Mhm. sofe jeex na euh, ba ñuy yànq jeex na lu ko waral ñu ni meera sa jëkkër du mer sa goro du mer boo yeewoo suba bala ngay laajub dépense. Mhm. parce que bu ma yeewoo. sama soxna ñëw ak xetu gémmeñam ni ma jox ma sama dépense. da nga koy jéppi bu ma ko doon jox junni da nga koy wàññi def ko ñett ak juróom ñëw xetu gémmiñ gi neex lool papa jox ma depanse bi bu doon junni ma def ko ñaari junni sama xol day day sedd. day sedd. te meeraa dafa ànd ak système flore. Mm. système flore mooy liggéey li nga xam ni mooy ciiñ. ciiñ ay bëñ du feebar ciiñ mooy feebar. Mm. mooy dem ba jàpp say bëñ mu waral muy bënn ka yànq ngay lekk mu ciy taq di dugg ci biir. boo amee meeraa di ko patoo dañ la booy patoo Mera danga koy bàyyi lu mat ñaari minutes ci sa biir gémmiñ ngay broche broche biir. kii bi boros même làmmeñ bi ak fi nga xam ne mooy ci ci kaw. bu ko defee xetu gi ok euh, mhm. xetu gémmiñ boobu nga amee day mën a ci yow ba set. Mhm. kooku mooy mera système flore mooy liggéey loolu. waaye bu nu nee li nga xam ne mooy parfum chambre baxuur bi nga xam ni. Mhm. am na fruit rouge am na lilac am na fraise am na tropical. nga xam ne ay xeetu parfum yu am. solo mooy bii nii boo ko pompé ci sa biir ne. ñu xàmmee ko mu ngoog biteel baa jëkke jongo ma bu njëkkoon dangay ngay boyal ànd jël cuuraay def ci bu fekkente ni da nga amee euh, li ñuy wax euh, euh, sëqët si li koy joxe maanaam asma doo bëgg cuuraay doo bëgg saxaar ak jëkkër ji bëgg eh, bu xoolal jaaral ci digg bi jëkkër ji bëgg a dem sa cuuraay lee ma fat il faut ma génn ci biti jël air kii baax ci moom amul lay duñu lay soo koy pompé ñaari ah. yoon ci biir néeg bi xet gi gil-gili man sama soxna lii la may tëjee parce que même su ma nekkoon damay dem jouer ji sax bu ko pompé ma daal di tëdd na ko mais yow fruit rouge bi nga dóor wala fraîche bi mu ne ma non maa ngi jouer maa ngi dóor tropical bi. kuy xalam di ca jaar waaw ma daal di bàyyi. te nag rawatina felaaleeg rideau yi gis nga jigéen ñi nañuy natt fii nit ñiy def nii rideau di fel di dugg. Mhm. foofu ñu fay def kii. dafa am solo. da ba pare da may ndam. dafa parce que ku ne nii danaan xeetu rëdd na xeetu néeg gi neex na. Mhm. jeex na ñaareel ba jetol mu ngi fi. waaw xam nga ñu ngi wax ni jetol lépp luy microbe bi nga gis ak bi nga gisul. jetol mhm. moo ci baax. dëgg la parce que jetol mooy rey microbe. Mhm. xam nga nee naa la lépp lu am ci eau de javel. am na ci jetol. dëgg la mais li am ci jetol amul ci eau de javel. muy lan. muy que jetol dafa am yu am solo yoo xamante ni dafa nekk ci biir. jetol day rey microbe. ñaareel ba day faj ndoxu siti te day rey ay teeñ. teeñ men di faj karaas ci bopp. dem si yàlla si teeñ di faj xetu yaram. Mhm. ba ci taan léeg-léeg nga dugg ci biis gis ko ak loxoom boo bëggee joxe paas boo tourné dootoo bëgg a tourné waat da ngay sànni sa loxo nii ni sa waay joxel ma ko joxel ma receveur. wala nga dugg ci taxi. mu nga nañ jaar ci digg ba. booy dugg ci taxi bi toog ci ginnaaw sa li ngay jëkk xalaat mooy dem ca poignée ba wàcce fa verre bi lu mu sedd sedd. léegi nag boo amee. jetol ak jigéen ña ca jógee ca marché ba ñoom seen. xam nga euh, jetol dafa baax ci li ñuy wax césarienne. césarienne maanaam opération. waaw bu fekkee am nga jetol euh, di ko nettoyer li nga xam ni mooy opération boobu trois fois par jour trois jours mu wow. donc mooy remplacer dakin ba. ki nga xam ni dafa amee baaraamu tànk buy xar di xeeñ muy baaraamu sànqaleñ bi nga xam ni day day xasan boo ko laalee muy xasan. Mhm. boo amee jetol utal kaas teg ci di ko ko raxasee. trois fois par jour mu wow. ki nga xam ni yaramam day xasante gisul ay picc parce que loolu day am koo xam ne nii day jikki-jikki di wokkatu naan man xaw ma dama suukar xaw ma lii nu mu doon mhm. boo amee jetol di ko sangoo da ngay gis ni loolu day denc te kubéer ngay natt rek def ci siwo ndox bi ngay natt def ci siwo ndox bi bu dee mu weex ba mel ni meew taxul mu yàqu ci dara taxul mu yàq ci dara d'accord boo yoree sas mhm. jëlal sa satala teg def ci ndox sotti ci ñaareel ba bàqu soo paree leen xalikoo ko mu ngoog bala ngaa dem ci sa tool ma dolli la ci beneen bu ma ci découvrir mhm. xam nga man moom wokkatu day sama xarit waaw xam naa ni ñëpp a ngi naan ñëpp a ngi xëma ki ree naan li muy wax nii mhm. dangaa wax ne sangoo mhm. wax ne eh, foo ko diw foo am cité yooyu nga diw ko fa mu deñ ma dolli la ci beneen boo mësaan a dem am jàngoro jooju ñuy wax laa gaal mooy wokkatu bu metti bi te doo gis tënna ndiir doo gis dara wala bu sew ngay gis mhm. dañ la daan jox looy jëfandikoo di ko diw ci sa yaram ba pare mhm. wëlbatiku jox la loo xamante ni da nga koy pomp ci lal bi mhm. ne la boo xëyee weeral bagage yi loo soloon bu ko solaat ndax bi mi ngi ci biir yére yi jëlal ma setol bu sa baxuur bii jeexee pompe bi nga def ko ci toqal ci ndox ba mu fees pompel ma ko ci lal bi bàyyi tuuti mu désinfecté lépp nga tëdd am sa njaax xam nga wax nga boobu bu ma kenn xam nga ñi ma sa cuub la nag lakkal ngeen ma torop muy lu am solo. waaw yow miy yar ay xar bañ say xar teeñ. ba mm. ñu am ay mutu mut mm. utal jetol di ko ko sange. am nga jetol yow dégg naa yaa ngi yare xar de. non am na kii kay du ma ko bàyyi ginnaaw parce que kii solo gi mu am. Mm. ni ma ko xamee sax dafa te moo ay ci ay yoo. Ah, mbóot yi dox yooyu. Mm-hmm. ni mu ci ay sax dafa ah? kafaar yi nekk ci néeg yi. mbóot weñ yëpp lay yëpp lay écrasé moom. kii kay moom tabaarkàlla moom. ba pare bàyyi la fa xet ga dul déranger. kii boo ko ci defoon tey def ci ndox jël ñaari kubéer yi sotti ko unku taxaw nga pompe ko ko mu seddi foofu fa mu taxaw. unku men unku men mi moom jotol mi wallax jaan taxaw nga pompe ko ko mu woow. c'est que lu ma wax ci moom lu ko dal fi mu nekk nii dañ naan maa ko catu ñëwal ma ci. baxuur baxuur bëgguma koo catu mukk comme ni ñu koy waxee. Mhm. baxuur bi dafa nekk produit boo xamante ni xam na ni baxuur. Mhm. bu njëkkoon ak yi nu mel ñoo ko daan këf di ko yóbbu. Mm-hmm. Gambie Guinée Bissau Conakry waaye tey ñun waa Sénégal ci boppam natt na ni. Mm. boo ko fóotee ci sa yére daf cay bàyyi xetu parfum. Mm-hmm. ndax dafa ànd ak li ñuy wax cuuraay baxuur daf ciy bàyyi xetu cuuraay bu neex. Mm-hmm. te yow da ngaa bëgg cuuraay baxuur bu baax ndax da ngeen di dem ba ci réewu arab yi di ko fa. jënd di ko fa wuti demaguma gaa moom moom Makka waaye dama yónnee di ñaan rek. mu te léegi nag ma daat andi na ko baxul boo koy fóotee sa yére daf ciy bàyyi xetu cuuraay bu neex mm. boole ci day nooyal ay loxo day dundal tissu maanaam tissu bi ngay sol dafa am weñ mm. weñ bi dafa war a dund waaw weñ boobu nag bu fekkente ni amul li nga xamante ni mooy euh, euh, produit bu baax buñ koy fóotee mm-hmm. mooy waral boo ko fëggee weer bu ko naaj bi jàppee mu changé couleur bi ñaareel ba boo ko paasee mu xottee ko mm-hmm. mm-hmm. te baxuur dafa nekk produit bu am solo pëndax la poudre boo xamante ni nii madaar baxuur bi madaar baxuur mm. pëndax la boo xam ne boo ko yëlebee dangay ngay dégg muy yëngatu waaw mel ni grain yi dafa dëggër mel ni araw mu ngoog poudre bi la gën mooy bi nga xamante ni boo yëngalee mu yëngatu mais bi ngay yëngal mu mel ni pat boobu baaxul te madaar bi mu lay jox mooy bi nga xam ne boo ko yëngalee mu yëngatu léegi nag man damaa bëgg laaj seen gaamu produit yi yëpp mhm. gaam yi yëpp lu leen ci inspiré parce que man bu ma ci laal rek na dootuma bàyyi boobu waa xam nga Madaar. te pourtant sama xarit bii day bari wóoloo ci wax ay kii. Noura. Gamba. nee naa la barki damaa yéex a dal ci Gamba. Mhm. dama cee yéex dal dama yaakaaroon ni kii rek la. Mhm. yaakaar ne laal naa laalaake. ndekete yow boobu am na gaam. ndeysaan xam nga nee naa la kenn du fi nuur nuuraa ngi fi. kenn du fi. nuur nuuraa ngi fi. dafa xaw a nag. kii mooy nuuraa <laughs> kii. mooy Noura. <laughs> mooy Noura temps bi jeex na tàkk lan ngay tàggoog mbokk yi. waaw maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama patron Mouhamed euh, Doucouré. Euh, di nuyu sénégalais yëpp. di mhm. nuyu tamit ñi nga xamante ni ñu ngi jëfandikoo Madar kër Diop mustafa Ndiaye. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp. Euh, di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp di ñaan sunum réew Sénégal. Mhm. yàlla na fi jàmm rek am te ku fi nar a ay yàlla boo yeewu. fi nar a yàlla boo yeewu. amiin yàlla fi jàmm rek sax. di nuyu ñëpp. Mm. di ziar ñëpp ñi nekk Italie Pape Mbaye ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax. jërëjëf wasalaam. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax njaw defe naa ni en une seconde. ma may la rek nga tàggu gaa yi. yaay xanaa gërëm la rek gërëm ñi ñu doon seetaan mm. waaye di nuyu sama jigéen di sama. sëriñ di e, soxna Fatou Touré. bu mm. bàjjen yaay soyeetu si. Mm-hmm. di jigéen ju baax maa ngi koy nuyu di ko ziar. nuyu nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi. yàlla ñoom itamit. amuñu seen fay. jërëjëf ñu leen di nuyu di leen ziar di nuyu. réew mépp réew mépp nuyu naa leen nuyu équipe technique bi ñu àndaloon rawatina waa HD industrie yi nga xamante ni ñoo ñu indil produit Madar di ci nuyu Mousli bu baax a baax nga xamante ni mooy sunu collaboratrice dox diggante 2STV ak HD industrie nuyu képp koo xamante ni yaa ngi àndoon ak ñun waaye rawatina sunu yaay ja di yaay ci yaa Sophie Euh, maa ngi koy nuyu bu baax yaa Sophie bu Espagne maa ngi koy nuyu di nuyu yaayam mi nga xamante ni saa su rek bu jógee màkk indi ma ci baxur bi waaye léegi noppalu na ndax ma daal baxur baa ngi fi te ci laay fóot samay kol ak sama yére oyof mu xeeñ bu baax macha allah su ma jàkkaarloog borom bi ne ko allahuma rek mu daal di nangu nañu nangul nag ñu joxante rendez-vous incha allahu taala lundi ci kàttanu borom bi kenn bañ a absenté kenn bañ a manqué euh, yàlla mën na ko sañ na ko yàlla nañu ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jaa ngeen jëf ci kër gee sonal na borom kër gee